بسم الله الرحمن الرحيم ci turu yàlla mi yërëm mboole mi jaamam di jagleel ñàkk a gëm yërmaande yowmal qiyaama iqra bismi rabbika alladi xalaq na nga jàng ci sa turu boroom bi nga xam ne moo bind xalaqal insaana min alaq moo bind doomu aadama ci lumbu deret buy wékku ci biiru yaayam iqra wa rabbuka al akram galla way jàngal sa borom mooy ka gën a tedd alladi allama bil qalam mooy ki nga xam ne moo jàngalee ci xalima allama al insaana ma lam ya'lam moo jàngal doomu aadama loo xam ne xamu ko. kallaa innal insaana la yatghaa. waaye déedéet doomu aadama kay day nekk aji bew. an ra'aahu istagnaa. heure bu demee ba gis na moom ko woom le la inna ila rabbika rujaa waaye ci sa borom day la delluwaay ba ëllëg yowmal qiyaama araayta alladi yanha amandox yow gis nga kii nga xam ne ma ngay tere abdan ida salla ab jaam jamono ba muy jóg di julli araayta in amoo ndax gisoo su dee jaam boobu nag daa nekk ci njub aw amara bi taqwa wala mu nekk di digle ak ragal yàlla araayta in kaddaba wa tawalla amoo ndax gisoo ka kay tere su dee daa weddi day wone gannaaw alam ya'lam bi anna allaha yara amoo ndax kooku xamul ni sa borom yàlla mi ngi gis lépp kallaa la in lam yantahi lanasfa'an binnaasiya déedéet bu bàyyiwul li muy def day daañ ko poñi ci karaw yi nekk ci jëm naasiyatin kaadibatin xaati'a ah, borom dée boobu nga xam ne nii aji weddikat la aji defkatu bàkkaar la na dem woo ñami toogal ci grand place am ñun dañ woo sunu mbalaaka yi nga xam ne ñuy mbugal kalla la tutihu wasjud waqtarib déedéet yow ko baax ki bul topp ko mel noonu del sujuutal sa boroom di jege sa boroom